Nine. الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في الصالحات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر المسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله وبشر المخبتين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi ak jataay bu màgg bi ak nit bu màgg bi nga xam ne nii ñu leen toog tey di sant bu baax sëriñ Afia ci waxtaan wi leer gi am solo gi ak matala yi defe naa ne bàyyiwul lenn lu jar commentaire lu jar lu jël kàddu kon noo ngi koy ñaanal sunu borom yokk taxawaayam yokk gërëm ba yéene ji am ci liggéey ci liggéey bu mag bi liggéey bu mag bi nga xam ne mag ñu mag yi bàyyi mu def ci lu kawe jortam wa ma daalika alallaahi bi aziiz barke Seexul Xadiim di nuyu ak ziar bu baax sunu gan ñu tedd ñi nga xam ne nii ñoo jógee ci kër maam Mor moom soxna Jaara ñëw bokk seen ngeen bis bi di fedd li kóllëre bu yàgg bi nga xam ne nii doxoon na ci diggante mag ñi nga xam ne nii Serigne Touba moo leen defaroon di sant Serigne Massamba ci ni mu idaara jalsa bi kon daal sant ñëpp gërëm ñëpp sant waa daayira bi tam li nga xam ne wax dëgg yàlla ay tout tànk lañ waaye seen xel rafet na seen jubluwaay itam yaakaar naa ne am na solo kon dañ leen wax wa ilal amaam donte nag yoon yu mën a mett waaye dox rek moo fi des ndax teg gën ci yoon wi kon ñoo ngi rafetlu euh, jataay bi rek dox yi bu baax a baax ni ko sëriñ Afi waxee rek bu ñu amoon lu ñuy commenté ci waxtaan dañuy wax ne waxtaan wi lépp liñ ciy déggee mooy ne mag ñi liñ ñu rawee dafa bari mag ñi li ñu rawee dafa bari léeg nga jàpp ñoo xam ne jàpp ne am adduna dafa avancé waaye mag ñi li ñu rawee dafa bari ndax tey Serigne Touba ni mu xamee woon ne bala ngaa mën a defar am koom-koom da ngay defar nit ba pare tey ñun suñu réew yi li ñuy daj ci wàllu lu avancé développement économique li ñu ciy daj te mënuñoo fexe ba seq jéego ndax nit ñi lañ defaragul li fekk nit ñi jabuñ nag système boo fi mën di indi ci échec lay mujj ndax nit ki bu fekkee dañ defaragul. boo ko dénkee alal mu lekk ko bu waree xëy du xëy yëgul responsabilité amul lenn lu muy xam kooka ak loo man di def ci moom ak loo mën di investir ci moom ëllëg ak si biir loola ci façon lay mujj kon mag ñi rawee nañu lu ndax sëriñ bi ñëwee loola xamoon moo tax mu daal di jublu ci tabax doomu wax na ko léegi sëriñ Mbacke Bousso li ñu rawee bari na lool ndax ba muy toog di xalaat heure local bi suñu affaire wax boobu yàgg na lool. muy problème boo xam réglé na ko bu yàgg moom te ba léegi ba ci réew yu avancé si sax mënaguñ ko réglé tey boo demee Europe wala nga dem ci yenn réew yi da dégg ñu ne maanaam temps hiver ak temps été loolu suñ Mbàkke réglé woon na ko bu yàgg heure bii suñu affaire wax léegi suñ Mbàkke mi ngi ko natt jant bi bu ñu ko doon jëfandikoo tey nii nga xam ne huit heures day teel lool léeg-léegi léeg mun naaj lool bu ñu doon jëfandikoo heure boobu loolu day réglé wu te boo gisee ñu yokk heure bi ak a ndax léeg-léegi huit heures day ñu yokk ci benn waxtu léeg-léeg mu dem bam naaj ñu wàññi ci benn waxtu ngir dàkk jant loolu nag suñu bàkk régloon na ko bu yàgg kon ma loolu dafay teg tale ne mag ñi li ñu raxe bari na loolu kon nag ndaw ñi ñoo am warteefu war a jaar ci loola kon loolu la suñu affaire wax tabax doomu aadama sëriñ bi bi mu ñëwee tabax ay mag mag ñooñu mu tabax leen rabbi asxaabaka bil himma wala rabbihim bi darsi faqat muy lu am solo yitte ju kawe joo xam ne ni mooy tax dootoo gis sa bopp waaye mbooloo mi ngay gis dootoo gis sa njariñ waaye njariñu mbooloo mi ngay gis dootoo gis sa daraja waaye daraja mbooloo mi ngay gis loolu sëriñ bi moo ko defoon ci mag ñi te loolu rabbi asaabaka bil himma mooy yaral nit ñi ci yitte te bañ leen yar ci am njàng gese xam bi léegi la gën a bari lool maanaam matukaay yi la gën a bari fuuf waaye day mel ni xel léegi la gën a salfaañoo léegi la gën a jaxasoo loolu nag la ko waral mooy ne nit ñi lañ defaragul kon sëñ bi nanu mu yarewoon mag ñi yar leen ci pas-pas bu kaayu boobu moo waraloon ñoom gisatuñ woon lenn lu dul lu tegu ci yoon lépp lu tegu ci yoon rek ak lu mu réeree ci seen kanam loola lu woyof lay doon ci ñoom loolu moo waraloon sëñ Aliou Diouf Lambaye ak sëñ Babacar Ndiaye Targaan ak sëñ Mor Maane ba ñuy tontu boroom nguur googee naan ko teg fawli lay tekki fawli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk loolu bañ koy def sëñ bi moo feeñ ci ñoom sëñ Mbàkke toog na fii ci gere bi mu nekkee ci bunt gi wérati ba gi métti lool am kenn ci magi taalibe ku ñëw di ko yërëm ndax jàpp ne daal wax dëgg yàlla moom ni mu baaxee wérati gu métti gi waaye sëñ Mbàkke ci ca tawat ja dafa daal yëkkati loxoom ba mu ne ko tabax bu la gën a moo lay gën a jafee loolu nag yitte ju kawee sëñ moo ko def ci ñoom loolu nag mooy li nga xam ne nii ci lañ mag ñi raayoon te mënaguñ leen ci àddab ba léegi ci loolu la sëñ bi liggéey kon bu ñuy wax wàllu développement ni ko suñu af waxee ñu xam ne defar nit mooy développement dëgg dëgg dëgg dëgg waaye nag koom-koom mu bari matériel bu bari ak yooyu lu mu bari bari te teguwul ci nit ñu ko xam nit ñu ko mën a jëfandikoo loola kasara lay jur te mooy li nga xam ne ni moom la ñuy dund kon del defe naa ne dellu ci dellu ci dundu mag ñi defe naa ne lu jot la jéem koo nafaraat jéem koo xamaat jéem koo jël comme repère wax nga ko suñ Masamba xëy na repère am na waaye nag dañ koo jël comme repère waaye nag bu ñu fi bàyyee dañ jël leneen mu mën a dox kon ndaw ñi nañu xam ne euh, sëriñ bi ni mu tege woon xutta wala ba plan bi mu tegoon pour soppi askan wi da ko tënkoon ci ay jéego suñu affaire ñëw na ci yu bari waaye ci lu ko gën a jege dañuy wax ne askan woo bëgg a defar il faut nga teg ko ci ñeenti mbir bi njëkk mooy nga xam li yàq ci askan wi dëgg lu doon bala ngaa mën a defar mbir da ngay xam li yàqu lu mu doon dëgg-dëgg loolu bu ñu ci doon joxe misaal dañuy wax ne oto bu paan oto moom bu paanee kum romb di daw da nga xam ne oto bi daa paan waaye nag oto bi lu mu paan exact loolu mécanicien da ngay xam oto door mën oto bi li mu xam li mu paan kon aw askan mënuñu koo defar te dugguñu ci biir askan yi jàngat ko ba xam rëq-rëq bi ne ci biir askan wi ñu door caa mën a jub kon jéego bi njëkk ci defaru askan mooy. nga fexe ba taxdiidul muskila te mooy jafe-jafe ba fa nekk nga mën koo fixé ne lii moo sikk ci mbir mi te ci laa war a liggéey boo ca noppee da ngay teg plan plan moo lay may doo làmbatu weesu nañ bu nag jamono weesu na bu yàgg sax jamono yi mag ña fu ñuy doxee di làmbatu da nga naan fii laa bëgg a jëm te yoon wi ak yoon yi fii ak fii ak fi laa jaar ba àgg fa daal di commencé dox loolu kon benn la ci jéego yi boo tegee plan ba pare nag teg plan muy xalaat bu rafet te doo ko jëfandikoo doomu amul njariñ nga door ñëw ci ni koy application yi application yi nag moo laaj jumtukaay yi suñ suñ suñ affaire doon waxtaane tudd na ci yu baree yoo xam ne nii mënta ñàkk te dara jiituwu ci jàng ba am xam-xam jàng mooy li nga xam ne nii lu mu lay taayut loola ngir mu tegut yoon du yomb seen yoo xam na ko iskullu amilin bila amin yura fa sa'yuhu mislu habain nusira kon lépp looy def ci xam-xam suuf pënd boo jëri mu ànd ngelaw li naaw loolu ñooy yem kon ñu xam ne ñu bëgg a yëngu te bëgg a defar askan wi il faut que ñu jéem a ubbiwaat daara yi delluwaat ci daara yi jéem a jàngaat njàng moom itam nag mu doon njàng moo xam ne nii du doon njàng muy demee boor njàng muy demee wet mooy njàng mu jël li sàggane leen fii ci réew mi léeg-léeg dañuy wax naan njàngum diine ak njàngum àddina loolu lislaam xamu ko sëñ bi jàngale ko xam-xam benn rek la moo tax kon ki jàpp ne man diine dong laa war a jàng waruma jàng àddina ci njuumte la ki ne àddina dong laa war a jàng warumaa jàng diine ci njuumte la nekk kon nanu fexe ba nu mën a delloosiwaatee ni mag ñi doon jàngee tey sëñ Mbàkke diine lépp xamoon ci fiq xam ko ci usul xam ko ci tawxiid xam ko ci xadiis xam ko ci ulumul quraan noonu la xam-xam ci mathématique ame ko ci Euh, astronomie amee ko ci astrologie ak yeneen yeneen xam-xam yoo xam ne nii mag ñi dañ ci doon bind sëriñ Mouhamadou Bousso ni taawam taalif na téere ci calcul maanaam li calcul la opération quatre opération yi ñuy def nii taalif na ci téere boo xam ne nii ba léegi gisaguñ téere bu gën a yomb a jàngale ñeenti opération yooyu ci téere boobu te ba nga koy taalif booba noonu la géejoo woon ci fekk loolu moo amoon ci lislaam bu njëkk mag ñi loolu lañ xamoon léegi nag ngay gis koo boo gisee jafe-jafe bi am ci àddina bi day da ngay gis koo xam ñeenti xaddis lay bokkal du xam leneen foo waxee mu takfiir la weddi loola def la yéefar te fekk na moom lu baree bari xamul moo tax loolu ndaw ñi door a jóg il faut ñu bàyyi seen xel ci ne nañ fexe ba xam-xam boobu ñu gën koo yaatal gën koo déggee déggin wi ci mag ñi amoon ngir mën a defaraat jubbantiwaat askan wi ni ko Serigne Touba defee woon ba noppi yar mag ñooñu Serigne Mbacke Bousso kenn nit ñoom ñëw def ko kon bu ñu defee loolu ba noppi nag mu toog mu des nag ñu koy évaluation évaluation nag mooy li nga xam ne nii moo manqué ñu baree bari ñun defe naa ne li ñu tëral ci projet tëral ko ci ay gisiin di ko def ci ay mbir bu ñu ko doon évaluer kon na gën wees nañ fi bu yàgg waaye nag daañu daje fii toog def jotaay bu rëy rëy waaye bu ñu fa jógee bu subaa pare nañ ci duñu ko évaluer ba xam lan moo ca sikk lan moo ca baax lan moo ci baax lañ ci war a lañ war a defaraat loola tam mënta ànd ak defar aw askan loolu évaluation kon lu am solo la ci li nga xam ne nii mag ñi daanañ ko jàngale nii suñu affaire wax suñ mbàkk bi muy taarif yi waa Qutu Salaat la mu ko jaraloon moom il faut que ñu xam ne loolu it day lu mënta ñàkk si ak moom mooy li nga tëjee nit lu la lu la li ko yëkkati daf lay jaral fanweeri at ak ñett boo koy liggéey ci mbir saa yoo xëyee xool jant buy fenk bu digg jant amee bu digg bëccëg amee nga xam bu jant bi fenk nga jëlaat ko loolu du liggéey bu ndaw loolu moo loolu musaabara dañuy wax musaabara te mooy nangoo sax ci mbir moo koy maye loolu itam ndaw ñi dañ ko war a jàngee ci li nga xam ne nii mag ñi liggéey nañ fanweeri at ak ñett yooyu sëriñ Afia du du du hasard ci wàllu astrologie ndax ku nekk xam ne ne atum tubaab bi ñuy wax atum tubaab tubaab ëppee na at mu ñuy wax atum jullit fukki fan ak benn moo tax fanweeri at ak ñett yu nekk atum jullit yi day dugg ci biir atum tubaab yi loolu la muy teg muy ne fanweeri at ak ñett yu nekk weeru tam xarit dana teeru ñaari yoon ci mel ne atum tubaab yi loolu la suñu Mbàkke doon dàkk ci fanweer ak ñett yi nga xam noonu moom la taalif téere boobu muy liggéey boo xam ne nii defe naa ne ndaw ñi war nañ ci jéem a roy xam ne xam-xam du lu ñu am ci benn fan ak ñaari fan wala ay at yu néew waaye laa yu'tika ba'dahu illa ida ataytahu kullan aw kama qaal da nga koy jox sa lépp mu door laa jox tuuti ci lim lay jox kon loolu defe naa ne lépp ci tànt bi ay ndaw lañ jotaay bi ñu ko taxawal ay ndaw lañ te defe naa ne ni ko sëriñ Afia waxee ñoom ñëpp lu baax lañ bëgg kon nag lu baax loolu dañoo war a xam fu ñuy jaar ba am ko te mooy jéem a toppaat tànki mag ñi nafaraat ko jéem koo gëstuwaat jéem koo xereñe xool fañ tegoon seen tànk démb ñu jéem faa teg suñu tànk ngir ëllëg nu man koo waajal bu baax a baax seen Mbàkke bi bi bi fi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu door a jógee jafe-jafe yi bari am na lu am solo lu mu benn leen rek la ci bi mu joxe ci misaal te muy loo xam ne ndaw ñëpp dañ ko war a bàyyi xel sëriñ Mbàkke dafa waxoon ne nen ak nen néewaana lu nen di toj morom ma loolu moom néewaan lu muy bu ñu bàyyi woon nen ak nen rek dara du toj ginaar dana nen lu mat fukki nen ak nangam xëy ko boof ba tojtal ko ci ji doxi seen soxla te benn nen du ci toj mooy nag kon bu ñu bàyyee nen ak nen ñaare kon nen du toj waaye nag bis bu xeer jógee nag ni damay régler diggante nen ak nen nee na liy toj dana bari ndax nen bu laalee xeer toj bu ko xeer laalee mu toj loolu nag mooy li yàq jamono ñun ñii di ay ndaw wala boog sax ñu gën a féete foofu ñu bare bare legi seeni taxaway ci biir njabot gi tax na ku ci wër dugg ci dugg loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax lu am solo la bis bu ñu fexee nag ba ñeneen ñu wër dugg suñu biir dugg suñu biir lu yàq noo ko yàq te nag mujjee dara mu réer ci say loxo loolu ndaw ñu war nañ ko daw baax suñu maas loolu laa amoon lu ma bëgg a yokk ci waxtaan yi xam naa damay dellu rafet lu baax sant Serigne Afia sant mbooloo mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah dañuy jéggalu donkaant kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanamu ci kanamu suñuy kilifa waaye di rafetlu itam bu baax a baax liggéey bu am solo bi nga xam ni waa kër Serigne Alxaaji Mbàkke bu sa taxaw nañ ci ñu mën koo déggee ni kon ay ndaw la yoo xam ne dañoo jóg ngir suuxat la mag ñi jëmbatoon kon lu am solo jëm kanam ko defee nag waxtaan ci diggante Serigne Mbàkke bu soo ak sëriñ Mamor Diarra gis naa waraxaat yi ñu doon séddale léegi li muy gàtt gàtt tënk na lu am solo loo xam ni buñ ci yemoon fii de ko daanaka mu xaw a dëppoo ci mën a wax waaye rek ginnaaw ba leen ay mbokk boole moom sëriñ Bakki Bousso ak Mamor Diarra dafa am ay kóllëre yu leen boole ak bokk jubluwaay bokk yitam pas-pas ginnaaw boo xamee ne mbokk googu boole na leen ndax bu fekkoon dangaa bëgg wax ni suñ Maam Mor Jaara lu mu bokk ak Sëriñ Mbàkke Buso danga naa doomi nijaayam la doomi tàntam la ndax Sëriñ Buso de mi nga xam ne mooy wayjuru Sëriñ Mbàkke Buso mooy nijaayam te ko yar lu nekk ci moom moo ko ci def waaye itam doomi bàjjanam la ci soxna Faati Bal la bu ko defee dafay mel ni gi nag eh, cosaan li mi ngi dalee ci sëriñ mbusoobe mbusoobe ci bopam mo gëna a ak maam Mor Jaara moko jangal moko yar lu nekk ci mom moko def ci mom ndax ba mi nekk ndaw la ko maam Mor Anta Sali yëkëti tek ko ci loxol Serigne Mbusoobe ndax ñoom na ñoom ñaar itam muy Serigne Mbusoobe Serigne maam Mor ante Sali ak mbokk da leena boole won kenn ko nekkee itam fonk mbokk ga lol kenn ko moromam fu kawé doylo nga xamni Serigne mamour soobee looloo taxoon mu yëkkati Maam Mor Jaara teg ko ci loxoom nga xam ni moom moo ko jàngal moo ko yar waaye sëñ bu soobee itam ngir xam eh, ak mën a jaamu yàllaam ngir xam ak sàmmwante ak xam-xamam doy na ci misaal ñu ne biñ demee Saalum ci woote Maba boobu boroom xam-xam yu bari dañ fa dajeel waaye sëriñ bu soobee lan tegoon ci kanam nga xam ne ci wàllu xam-xam ci moom lañ doon jël si moom moo doon àtte la ca waykat ba wax naa jamaa sujaata wal fuduuxa li rabbihi ma axsana al mixrooba fi l mixroobi di wax ni sëriñ mbusoobe ni nekk woon imaam ba noppi am al ilmaam bil ulumi shar'iyya loolu tax bu taxawee ci kanamu jàkk ci mixraabu jàkk danga laa kii moo fi dëkk sëriñ mbusoobe moomu ci gàttal moo yar Maam Mor Jaara lu nekk ci moom moo ko def te xam na ni sëriñ mbusoobe dafa yoroon daara ju mag daa jàngale alquran ak xam-xam daaraam bokkoon na ci yi gënoon a mag nit ñi daa takk di bàyyi ko min sottal arja yi di fa ñëw di fa jàngisee te daara jooju mujj na Maamoor Jaara moo koy saytu yàlla dogal bi nga xamee ni dem nañ ba ñoom ñépp jóge Saalum ak teqale ko xaw naa am foofu yi ndax boobu sëriñ bu sooy ba mu fa jógee dafa jaar naawel ci soxna astawaalo ndax boobu fekk na mu nekk mu nekk mag am na téeméer at tegal booba fekk na mu nekk mag mu jaari fa ngir lan ngir mën a nekk ak moom nekk ci wetam ba bi mu wàccee liggéey 1884 ci dafa doogu jóge booba Mamour Anta Sali bi mu fi jógee ya, dafa dem nam fa am bariwut moom itam dal di wàcce ab liggéey foofu des na am luñ ci mën a jàngatu tuuti mooy kon bu ñuy nettali wàccu liggéeyu Mamour Anta Sali doo dégg ñu ciy tudd si Mamour la ko waral mooy booba daa fekkoon ma nekk sëriñ bu soobee nekkal ko ca daara ja looloo tax bu ñuy nettali histoire boobu doo fi dégg awturam benn yoon te itam moom bi mu jógee Poroxaan bi mu jógee Saalum moom Mamor Jaara dafa jiitu sëriñ bu soobee Mbàkke nekkal ko ca daara ja ndax ne woon naa la boobu moom daa fekk mu jaar naa wér yàlla dogal ñu dem ba ay jamono ñoom ñëpp dajewaat biir Mbàkke ndax Mamor Ansali bi mu wàccee liggéey Mbàkke Kajoor ci la sosoo ci la sosee yoonu murit ci la daal di gën si Mbàkke fekk Serigne Bousso bi mi ngi Mbàkke Serigne Mame Mor Diarra itam mi ngi Mbàkke ñoom ñëpp booba lañ fa dajewaat waaye itam bu ñuy wax ba tey diggante Serigne Mame Mor Diarra ak Serigne Mbàkke Bousso da nga tudd xam-xam ci diggante bi ndax bokk na ci di leen boole ndax xëy na Serigne Mbàkke génnoon na jàngi waaye bi mu jógee Saalum ak Serigne Sayxu Bousso ni ko Serigne Moussa di leeralee ci serigne mamour Jaara lañ jaar nga xani mom mo len wirul seenu xam-xam ak seenu mokkal alquran ndax boba dañuy boole ñaar dañuy taxaw day taxaw ci sa alquran wor lu ko leer lu ko ba xam ne nga bu ko defé bu la maye ijaasa nak ci la nepp di doga d'accord ne am nga xam-xam mokal nga alquran bu ko defé mo doon lo xam fay doga ci bayna wal amma ta wax nañ ni lolu sëriñ Mamor Diarra moo ko defal sëriñ Mbacke Bousso ak sayuxu Mamor Diarra moo leen tooral boobee ku fay kanfoore moo lay seetal te boo xoolee dafa boole ñaar muy kaan ak fóore ne xam na ni kaan buñ ko waxee ñun ci suñu istilaax li muy tegtale mooy ko mokkal alxuraan man alxuraan ba yegg ja bu nee itam mooy koo xam ne am na xam-xam kon dafay saytu wàllu alxuraan di saytu wàllu xam-xam ñu wax nu loolee sëriñ Mamor Jaara moko defal sëriñ Mbàkke Buso kon mu mel ni ki amé na barké xam-xam ci Mamor jaar bo xolé sëriñ Mbàkke Buso kon ko yalla dimbalé ci ñaari anam ndax fay jëlee barké xam-xam ci Mamor Jaara ta ko né xam ne ni Mamor Jaara ay jamono moom itam da wu ko tekkalé kèn ci walu xam-xam ndax né kon booba mufti ginnaaw bi nga xamé ni sëriñ Mbusoo be samp na ko ba dëgëral ko ginnaaw mo nekkon mufti mo nekkon marjo ulama talol way kat bi bimi wax ak wa keur maam Balla la na len yena wara joy ndax yena ñak jinjju na ca lu mel yaa aala balla buliitum bil xusuusi maan bi mawti aalimi al arbi muftiha nee na yéen ñàkk ngeen ndax lan ndax faatu borom xam-xam bi nga xam ni mo nekkon borom xam ko sowu jant waye itam mo da ubbe nit ñi ci walu xam-xam boo delluwaatee ba tey ci li nga xam ne sëriñ Mouhamed Bousso di taw sëriñ Mbacke Bousso wax na ko ci moom ñu wax ni sax marsiya la boo xam ne sëriñ Mbacke Bousso moo ko digal mu def ko ci borom sam bi mu wax lu mel noonu wa kam muskilin andil xija mutaxalliqin tataaraxahu lmuftu bi ibaratin tuqarribu aqsa fahmihi lil muxaatabi man wax ni baraana masala yoo xam dafay am ay sew-sew yoo xam dafay tëj boppi nit ñi ñëpp am cag jaaxle waaye buñ ko indee ci Mamor Jaara nee ca kàddu bu gàtt la koy leeral ba maanaam ma sori woon ba xel mënu koo jëlee da koy jigéen se ba nga mën koo dégg ci déggin bu rafet kon barkeb xam-xam boobu yi nga xam ni def na ko ci Serigne Mbacke Bousso ànd ak wiraasa xaaliya bi nga xam ne am na ko moom Serigne Mbacke ci Serigne Bousso bi loolu moo ko def man wala bal pour nekk mufti tariqatil muridiyya mu doon la jafe topp ci ay jamono moo nekkoon itam rajo xolama yi nga xam ne ñëpp dañ daa dellusi ci moom te bari na ay rasaayil yu def ak ay maxaalaat yoo xam ne boo ci delloo ba tey da cay leeral ay masala yu am solo waaye yenn yi itam ay tontoro yoo xam ne da koy jëmee ci borom xam-xam yoo xam ni dañ koo laajoon ay masala boo xoolee ba tey ci seen diggante ñoom ñaar li leen boole woon mooy Maam Mor Jaara ko doyloo woon Sëriñ Mbàkke Buso la tegoon ko ci wetam itam ndax bari na loo xam ne seen diggante la jamono dañ ko daa waxtaane te nañ ne itam Serigne Mbacke Bousso bari na lu serigne mamour Jaara da bëgg wax ak njabootu mom la fay doxale ngir mu yor ko nga xamne amna am lu joxe won dikenté ak njabootam Serigne Mbacke Bousso kep moko da xam kon loolu ak doy loola waye Serigne Mbacke Bousso ginnaw bam jaaré fam wara jaar xam lam wara xam ba noppi itam dafa wacc bopam gëm ni mamour Jaara ñam la kam ni nga xamé non la défé serigne bi muy ba bi Mbacke gis nga xam nga ni bi serigne bi di yar sëriñ Mbacke Bousso di ko tarxiya boobu fekk nañu nyenek Mbacke sëriñ Mamour Diarra itam ma nga fa amna na lu siiw liñ ciy faral di nettale bi nga xamee ni sëriñ Mamour Diarra ñëw na di seet si sëriñ bu mag bi booba sëriñ Mbacke moo nekkoon ci bunt bi bi mu ko ubbilee Mamour Diarra gis ci moom ak xaw a néew doole mu ne ko ñun day buñ bëggee dox doxiiru sëriñ bi du jàkk ndax moom du nit ne ko kon nag dama bëgg boo amatee bunt na nga ñëw fi man ma am lu ma la defaral nga jëfandikoo ko Simbake mbàkke bu nak am buntu fay dem ci maamool yàlla mo togal ko aslaax mu jëfandikoo gogo bi sëriñ bi demee ba xam lolu buy fàttu day fatali suñ mbàkke bu kon lolu ba di la xamal ni Mamor Jaara amon na taxaway way itam am na fum tegon tegoon ko bu amon na ci mom makana bu kawé ba misra ji gis na ngeen wax ko ci kay bi bi nga xamé ni Mamor Jaara sanc na ko ga dafa ni ko wéggé bokko ko kenn yow la ko jox nga xam ne Serigne Mbacke Bousso ginnaaw bi la fa yabal ab taalibeem mboole ko ñenn ci ñam ko booleel nga xam ne ñoom ñoo moome woon wàllu googee bari na lool itam lu mu daa am ci yeneen wàll yoo xam ni suñ Maamoor Jaara lu mu def rek faaw mu sàkkal ci ab ci Serigne Mbacke Bousso kon loolu dafa nekkoon kóllëre bu dëgër nekkoon mission bu dëgër boo xam ni wala nekkoon relation bu dëgër boo xam ne kon ñun sët yi war nañoo taxaw ngir gën a feddaliwaat loolee te lii mel na ci ab taxawaay la ci loola kon yàlla na bu baax a baax di ñaan itam sët yépp yal na leen sunu borom boole ëllëg ak seeni maam ci ñi muy junj ci aaya ba walladina amanu wattabaatuhum duriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim duriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay fi ma koy mujjee mooy bayit bi nga xam ne moom la ko moom la marsiyaala moom la marsiyaale sëriñ Maamoor Jaara ndax xam nga ni Maamoor Jaara bi mu fi jógee serigne bi mo jógoon ba koy bëgg taxawul bopam ba yagg ma ne am ma ci digal ndax fekk mi ngi yow ci la serigne barke bo so ngir mo dem taxawu ci la waxe woon waxam ji siw joojee ni ñu wax ni serigne touba moko wax lo dañu ko woon boo demee ba ca bare bu serigne bu soobee nañu sànni aw saan boko ko fu mo dal nañ fa denc Maamor Jaara bo demee ci armée bu soobee da ngay fekk seen diggante kon aw saan la sore ca la sëriñ bo Bousso waxoon ni ginnaw ba fi yonenti bi jógee ba tey tiimaatuguñ jëm ju magge yi jala ko marsiya te la ko marsiyaal summa agarbu sayxun abnu jaara yatal sa sin subhan xada utar mu ki di ko bax di ko sel di serigne mamour Jaara tuddee ko ko fa sunu sëriñ nee ci fukkelu weer fukkelu weer ci weeri asuhurul arabiyya moy sowwaal ci la wacc liggéey ci atum 1339 subhan jamonoy suba waaye ba tey mën naa nekk tawriya mu nekk li ñuy tuddee al adada bil xuruuf al xijaiya li muy tegtale kon saat ga foofu danga naa li muy tegtale ci ab lim mooy juróom benn fukk baaga di ñaar xaaga di juróom-ñett alif ga di benn boo ko boole muy juróom-ñaar fukki at ak benn ñu wax ni moom na amoon nee nah, kon ci juroom ñaar fukki atam ak benn nah, am ñoo xamni eh, ne alif gi dañ koy dindi juroom ñaar fukki at ci lafaato ci wéru sowaal ci atum 1339 kon yalla ñu sun borom taas ci seen barke mo abadan ridwan rabbihim maal juluudi ila yawmil qiyamati wassalamu alaykum wa rahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yen yéen bokk yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci aw santam di leen nuyu ci turu Serigne Abdoulaye Mbacke yàllaay bo. mi nga xamne tay mo fi fi jotta yu maam borom Euh ak délégation bi nga xamne moom laa àndal bépp mu yebal ñu ñëw teewal si ko fi tey eh, di leen jot li ay cantam ak i ngërëmam ak xolam bu sedd ci jëf ji nga xam ne sëriñ Thierno Bousso mi fi toogal sëriñ Mbacke Bousso ànd na ak njabootu sëriñ Mbacke Bousso gépp ñu def ko muy bisub sëriñ Mbacke Bousso bii nga xam ne dañ koo taxawal wëlbatiku dara jaale ko maam Mor Jaara borom Saam sëriñ Abdou nag di leen xamal ne xolam sedd na ci lool moom njabootu maam Mor gépp góor yi ak jigéen ñi ba moo waral mu xamal nu ne ni nga xam ne la amoon yéene ñëwal boppam jiite ko te xëy na yaramam mayu ko ko moo tax mu jox ndigal njaboot gi yëpp góor ñi ak jigéen ñi ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw ngir teew si ci seen kanam xamal leen ni li ngeen def gis na ko rafetlu na ko moom njabootu Maam Mor Jaara gépp di leen sant bu baax leen ci gërëm eh, conférencier yi nga xam ne ñoo doon wax nag ñu tàmbalee sëñ affaire sëñ sëñ fàllu wax dëgg yàlla li ñuy wax moom mënu su ci teg dara waaye ñaar ñu ñi dañoo doon ñaar ñoo xam ne ñoom dañoo doonul ñaar kenn lañu ci saayir ak ci baatin moo tax léegi bi ñu agsee wax naa ko sëñ Thierno ne ko ah sëñ bi day li nga xam ne moom nga def ànd ko ak njaboot gi mooy li ñuy wax dekkal cosaan ndax nii rek la ko mag ñi bëggee woon te nii rek lañ ko lañ ko daan ànde kon nag dangaa dellawaat yëf yëf fa mu dëkkoon ndax diggante sëñ Mbàkke Buso ak Maam Mor Jaara nii rek la war a dem te jamono ji dem na ba egg foo xam ne lu demee nii da ciy am solo lool ndax eh, xëy na ñi nga xam ne ci sama maas gi lañu ay ndaw lañu yu bari fekkewuñ ko te dégg-dégg yi ñaare li ngay dégg ak liy am ñaare doon faral di nekk benn moo tax yu demee nii doon lu am solo ci mbir ndax day yee ñu xamul di fàttali ñi xamoon te fàtte woon kon nag sëriñ bi am na mbégte ci jëf ji rafetlu ko bu baax ànd ko njabootu Mamour Diarra ni ma ko waxee nee na mi ngi ñaan daal ci jëmmi sëñ moor Diarra di ñaan ci jëmmi sëriñ Touba eh, njabootu maam Mbacke Bousso gépp yàlla ak sëñ Touba yàggal leen fi kàttanal leen ba lépp lu ñu mébétal liggéeyal lislaam liggéeyal ko maam Mbacke Bousso yàlla bàyyi leen bañ matale ko ci barke borom Touba. Eh, xëy na ñi njëkk a wax léegi eh, doon nga ko lim sax. Euh, délégation bi waaye demee na noo xam neexut a lim waaye nag boo tuddee lenn ci ñoom rek doy na waaye leeral leen rek mboolem këri Maam Mor Jaara yëpp daal kër genn gu ne góor ñi ak jigéen ñoom ñëpp ñi ca mën ñoom ñëpp ñëw nañu euh, di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen leeral ak leen seereel ngërëmul sëñ du akub cantam ak xolam bu sedd ak njabootu Maam Mor Jaara gépp ñoo ngi leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum